lay bëree bëri lay bëree bëri te ndaa naan laa ñaari yoon tubla kooma bu Ousmane Mbaye Xaad ak Bébé Ama ee eh waaw kaani sadam ponkol la de kaani arbitre suuf la ne combat bi Mbaye Xaada wane ginnaaw Bébé Ama ngeen jàkkaar lool Bébé Ama nag dañoo bëri laa ilaaha illallah ñu ngay lewtoo di bëre lang boo xoolee nag mbay xaada moo ëpp waa maas moom moo ko ëppale ñu nga see daw na jël ko takk na ko takk na ko takk na ko solante nañu jël na ko jaajëf chef may xaaral sol na ko de mbay da ko bëgg a jaay doole wala kott na ko daan na ko daan na ko awoy da koo jaay doole moo ko ëpp doole moo ko ëpp doole awoy biling balang awoy mbay xaadaa ngay julli mbay xaada Eumeu Sène waaw ak euh, Gris Bordeaux oh wax nga dëgg waaw sin ba moo ñëwaat Eumeu Sène ca panneau publicitaire ba la teg loxo ba waaw delloo ko kii ne boole bi la teg loxo ba rek delloo ko wax nga dëgg mbay xaada dafa delloo bébé ama parce que da ko plaqué mu koy tuur mbay xaada delloo ko oh ndeysaan salay jiin bismillaay ma dee ci door maam góor njaay sëtub maram jiin bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ku mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu jiin booba tuuti booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb